bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa molana muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi alqurul mayamin asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ginnaaw bu ñu siyaaree nuyu sëriñ mohamadinil muntaqa ibnu cheikh mohamadinil basir di ko ñaanal mu yàgg fi lool te gën a wér ak njabootuk sëriñ tubaa gépp ñi ngi ñaanal njabootuk sëriñ Tuubaa gi ñëpp tawféex ak jàmm ak koor gu yàlla nangu di ko ñaanal it mbokki taalibe yi ak mbokki jullit yëpp képp koo xam daal barab bi nga nekk yaa ngi ñuy gis di dégg suñu kàddu ñoo ngi leen nuyu bu baax a baax a baax di siyaare di ñaanal sëriñ seex Mbacké ibnu sëriñ Saalihu mu yàgg fi loolu te gën a wér ak njabootuk sëriñ Saliou gépp mu mel ni 24 act bi nga xam ne ci njiital sëriñ Afe Jaw ñu sàkk woon tey jii ngir ñu waxtaane ci jëmm joo xam ne taarix du ko fàtte mi nga xamante ni moo moo feeñoon ci njaareem 1915 di diggu tabaski muy sëriñ Saaliwu Mbàkke yàlla na yàlla yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem euh, jëmm jël jëmm la joo xam ne mi ngi feeñe ci ñaari waajur yu tedd muy Seyxul Xadiim ak di sëriñ soxna Faati Jaxate bu dee ci wàllu waa waajuram wu jigéen mi ngi bokk ci ñi ñuy wooyee mbaakol mbaakol yi te mbokk gi di génn rek muy jëmm joo xam ne Sëriñ tubaab moo ko boole ci boppam waaye bi ko Sëriñ Tubaa boole ci boppam ba noppi it boole ga rekk taxut mu doyloo ko yem ca ba mu demee ba nga xam ne yàlla def na mu toll ci fi mu war a toll ginnaaw ba mu jàngee ba noppi ndax wax nañ ne alquran mi ngi ko jàngee ci sëriñ Alassane Jaxate ba wattu alquran dañoo wax ne moom sëriñ Saaliwu sëriñ Suwaybu sëriñ Abdul Ahad sëriñ tubaab moo leen joxoon sëriñ Amsatu Jaxate ne ko waxuma ne doon ngi nga doon seen nijaay moo tax ma jox la ko déedéet dama bëgg li ne ci yow nga def ko ci ñoom waaye day li ne ci ñoom day li newoon ci moom day def na ko ci ñoom mu mel ni itam bi mu jàngee alxuraan ba wattu ci sëriñ Alassane Jaxate la daal dal xam-xam loolu nag daa mel ni ginnaaw sëriñ bi la ndax boo ko seetloo 1915 bi 1927 jaadu na bi mu tollee ci war a toll foofu fekk na sëriñ bi làqu bañ indi ko Touba waaye yàlla dogal na sëriñ Mouhamadul Moustapha alxalifatul awwal li Cheikhul Xadim taxawoon ci ginnaaw bi taxawaay bu doy boo xam ne taxawaay la boo xam ne àdduna bépp xam nañ ko moom moo leen jëloon ngir taxawaay taxawu seenam njàng tindoo di la ko yóbbu ci sëriñ guyaar jàngal na ko sëriñ abibulaahi mbàkke mi nga xam ne moo nekkoon al imaam di ko baax di ko tedd ku jege woon sëriñ bi ci mbokk ku jege sëriñ bi ci taalibe ku jege woon sëriñ bi ci teraanga sëriñ abibulaahi mbàkke moomu jàngal na sëriñ saaliwu ginnaaw bi sëriñ moor saasum jaxate jàngal na ko ginnaaw bi sëriñ mat dem jàngal na ko ginnaaw bi kuñ naan sëriñ amidu sow jàngal na ko dem na nag ba géeju ci li ñuy woowee astrologie muy ilmu nujum Serigne Saliou géeju na ci li ñuy woowee géographie ndax àggoon na ci tukki na tukki boo xam ne sax li waraloon tukki bi ngir xam ba xam liiñ équateur nature am nan lay demee ngir ma mën koo xam ndax ligne équateur mooy ligne bi nga xam ne moo jaar ci digg àdduna bi looloo tax ñoog waa Londres ñu bokk benn heure Serigne Saliou Mbacké demoon na Côte d'Ivoire dem bi ngir xee xool tabiatu atu istiwa yi muy ligne équateur nan la mel ndax géeju gum ci géej woon man mii ci sama rek sëriñ Thierno Bousso mii dëkk Bousso bi te doonoon xalifa sëriñ Mbàkke Bousso wala xalifa sëriñ Bousso bi te làqu bu yàggul sëñ Thierno Bousso fu sëriñ Saliou daan dem danaan ànd ak moom ci daara yi te da ko daan wax ne ko lii ñuy wooyee astrologie muy ilmu nujoom ak xam-xam bii ñuy wooyee joxraaf muy géographie sëriñ Saliou da ko daan wax ne ko yow rek laa ci mën a waxal ba tax na sëriñ Thierno Bousso fu mas a dem moom sëriñ Saliou day ànd ak moom ngir mën a waxtaanee ak moom loolu wax nañu it ak xerañam ci am njàngam mënu fi woon a raw nee na mas naa wax ne ki ko doon jàngal naxwu mook sëñ Ahmadou Jobbe sëriñ Saaliwu wax na ne bu leen masaan di jàngal naxwu Alfiyat ibnu Malik da leen di tombal li ñu war a jàng suba defal leen ko ay wolof su leen ko jàngalee ci wolof bañ mokkal wolof yi bu ñu xëyee mu doog leen jàngal bund bind bi loolu sax fi ne ñiy jàngale mën nañ koo jàpp ndax méthode bu baax la su suñu xëyee nee na bu leen ko waxalee benn yoon du jarmu mu ciy jaaraat ndax dégguñ ko dégg wax nañ ne it li ñuy wooyee xalil ibnu isaaq am na ñu ne ay numaan bu fekkee jàngewu ko fi doon na ko fa toppaat ki ma ko nettalee nee na ma ba mu fa demee yóbbu nañ ko ci ak rat ne ko rat gii fi la daan taal guddi fi la daan def jallu mattam bi taal guddi di topp xalil di ko topp ba fajar wax na ne bu nit ñi a toog bay fatu ji lay jël daram bi jël setalaam bokk kaamil bi dem ba ca rat ga mu taal nee na nit ñi bu ñu tëdd dañuy dégg kàddoom gi ba dootuñ ko dégg mooy nelaw nañu bu ñu demee ba waat fajar ngir julli la ñuy dégg muy wàcce kàddoom gi te man mii toog di wax ak yéen day mas na maa wax ne ma xam-xam li ma ci daj su ma yëgoon ci alxuraan laa koy daj kon wane na ne daj na ci lu doy war a doy waar lim na ma xam li ma ci daj su ma yëgoon ci alxuraan laa koy daj te loolu la ko waral mooy dafa maa woo ma ñëw fekk ma yor nax ju xadaayal xaaj sama loxo mu ne ma foo tollu ma ne ko nax ju mu ne ma yor du jàng dara waaye na góor góorlu waaye man mii day li ma daj ci xam-xam su ma yëgoon ci alxuraan laa koy daj man nag na ma jàngatee loola mooy soññ na ma ci ñaar na nga na nga fonk xam-xam bi te boo noppee alxuraan ji na ko fonk loolu man dégg naa ko ci bi mu jàngee ba noppi nag 1934 la tàmbalee nag. yor ay daara Serigne Saliou dafa teel a samp ay daara te loolu la ko sabab mooy bi leen Serigne Touba wooyee ci njaarim daf leen wax ne leen wul leen taalibe yi ku mokk may du yi loola njabootu Serigne Touba gépp la ko Serigne Touba waxoon moom nag ba mu ñëwee kenn ku ne bay nga ci sawaar waaye moom ba mu ñëwee aw waaram bi mu jàngee xam-xam ba noppi ba tërbiyee ba nopp ba def li muy def ba noppi la daal di samp daara nag tàmbalee dajale di jàngale di yar. yar nag yàlla dogal na man na ko manin woo xam ne du ne du ma gis moroomam waaye ku ko man ni mu ko manee nag loo ca yokkit du tax mu doon am njariñ ndax man gu ko sëriñ tubaab sëriñ Saaliwu man ndax baat boobee ko sëriñ Tuubaa waxoon waxoon ko ay mbokkam waxoon ko ay magam waxoon ko ay rakam ne leen wul leen taalibe yi ku mokk may duy daanañu wax it nañu sëriñ Tuubaa kon ginnaaw daa wax loolu kon duy mbira ma waaye wulli moom suñ mbira mbooloo mi di jóge fu ne daara ji ñaan got bokku na ci daara yi njëkk a sanc ak xabaan ak njurul waaye nag ci contest bu metti nag waaye nag li mbir mi metti metti mu xam ne mbirum Serigne Touba kanam lay jëm waaye jëmut ginnaaw mu téye rek ndax wax nañ ne daana ñëw ci daara yor genn setal ak ndox gone yi mar lool moom mi mu war cee jàpp def ci ay farataam waaye teewul setala googee lay jël di leen ko tànqal di leen ko jox par kubéer bu jeexee yaramam daw mu taala otom delluwaat foofu la Serigne Saliou tàmbalee tërbiye gi te ndax yoonu yàlla woo xam ne nag yomb na ku ko mas a gis rek na ko wax wenn yoonu yàlla woo yomb amut ma leen di waxal ni daana wax ne moom moom Serigne Saliou daana wax ne lum tàmbali yëg mu woyof rek nee na xam na ne loolu du jàll waaye nee na lu mu tàmbali yëg mu diis rek nee na xam na loolu ay jàll mu nekk ci di sanc ay daara ba sanc si ndookaa sanc si njàpp ndal nekk fa njàpp ndal nag wax nañ ne dund na fu lu méttee méttee méttee méttee métti gox boobu la ko lépp amul ndox loo xamante ne bi lu dul rek maanaam roote fu sori te bala ngaa am jot ca ndox ma di di xaw a daj lu métti mu nekk ak dong yi dong yi nekk ak moom nga xam ne booba wax nañ ne kànk sax daanañ ko bayee am na ko ma nettali ci ñoom loolu man fekkewu ma ko man ci man daara yu mujj yi ci laa fekkee ndax bi ñu bëgg a sañ si xel comme laa ñëw waaye ñi nga xam ne fekkee nañ loola nettali nañ ma dégg nee nañu got gii am nañ fa junniy bërigooy gerte yu xott yoo xam ne kànk lañ ko bayee booba tracteur amul nag amul mbaam sax amul nga xam ne kànk lañ ko bayee ba mu àgg mbay moomee nag lam ca daan euh, jariñoo mooy lu dong yi dunde am nañu ne sax bu ko masaan a joxe ba noppi day wuti lu dong yi dunde di ko wuti atum lëm ngir dong yi mën a dund mu ne ci nga xam ne ci àll bi lim ci nekk lépp lu dongo yi dundee ak kër gi rek mooy tax Sëriñ Saaliw jóg nga xam ne ci loolu la nekk nekk ci nekk ci nekk ci ba lu mu bay ku fi nekkal Sëriñ Tubaa yow la koy jëbal sëñ Modou Moustapha la ko tàmbale woon sëriñ Fàllu sëriñ Abdul Ahad loola waraloon toolam yi demoon ba ba àgg bu demee ba dem ba mat bañ war koo déqi war koo defar bu fekkee dong yi ëpp na leen mënuñu koo def ki fi nekkal sëriñ tubaa di sëriñ tubaa jamono jooju moom lay wax ne ko sa tool yi nopp na kooka mooy waajal lépp defar ko ba boo leen ko seetloo sëñ Modou sa Dieng mii demal na Serigne Saliou tool ànd ak waa kër sëñ Fallou lu baree bare loo xam ne sëñ Abdou Lahad ko daan sanc sant ñu bëri nañ def na sëñ Saliou ko daan sant waaye sëñ moo ko daan sant Serigne Abdou Khadir mii Serigne Modou Bousso Dieng demal na sëñ Saliou tool te sëñ Abdou Khadir moo ko sant ndax booba tool yi day wane ne ay toolama moo ko bay waaye nag dafa xamal ne njabootu sëñ Tuubaa gi fi nekk te doon sëñ Tuubaa ñooñe ñoo moom tool yi moo tax bu ñu demee bu demee ba toll foofa ñooñe lay dem ngir ñu santaane ko dañoo wax ne mas naa am jal yu bari fii njurul gerte gu baree baree bari nga xam ne sëñ bi camion yi ko mën a jëlee ba yóbbu ko jaayi ko ngir jox ko siblaat xawoon a jafe ci moom dégg naa siblaat xam naa dem na ba yëg ni mbay mi war naa agsi siblaat moo yónnee ay camion moom dem ñu peese ko yóbbu ko nga xam ne siblaat xamoon na ne la newoon njurul alalama sëriñ Saliou jógee Touba dem njurul xool jal yi gisu ko mu ne ah waaw jal yi jale woon fi anamu ñu ne ko Sëñ laat moo ko jël si moom jëlewu ci loolu ak cant dane alhamdulilahi rabbil alamin bi nga xam ne maa ko war a roñ yóbbu ko waaye bi ñu ma ko defalee mu nekk ci loolu nekk ci loolu nekk ci loolu ba yàlla dogal mu agsi ci doon sëriñ Touba bi mu doonee Serigne Touba ci la jot xel xelkom bi mu jotee bi mu jotee xelkom ba mu cay woote def na ilaa tawaalifi yaquudu llaahu asraara laa ilaha illa allaahu xafis suma siina anit dafa tëri fala takun an xidmati bi faatiri daal di loolu sëñ tubaa dafa wax ni sama xasida yi secret yi laa ilaha illallah ci la ko yàlla def nee na képp ku bëgg daj secret yi laa ilaha illallah sëriñ tubaa nee na xool sama xasida yi te it nee na képp koo xam ne xam nga loolu na ko fonk te téye ko te xam ne laa ilaha illallah ku ko bëgg a dab barkeem mi sama biir xasida yi Serigne Saliou boobu mu ngi ci soññe ne nañ jàng di yi ndax daa waxoon na tërbiye gi jàng xasida la dem tool ñaar yooyu ci la ko tënkoon ak jàng mu ñett yooyu daal daal wax ne képp koo xamante ne bii kat bëgg nga kafe am suukar am kafe te amoo ndox mi nga mujj wuti fekk robinet tëj doo am ndox doo am suukar doo am kafe bokk da ngay am ndox am kafe am suukar dal ne téeméeri bërigo kafe da boo ko amoon am téeméeri bërigo suukar te amoo ndox du tax nga am café loolu bu ñu daan soñ daan ñu soññee noonu dañu daa boole ñett yi asalaasa muy iman islaam ihsaan fi ne ci ko tër ndax bu ne iman tawhid moom weesuwul di liggéey liggéey boo xam ki nga koy liggéeyal mi ngi toog nga di ko gis nga di ko liggéeyal te yaakaar ci yàlla kon loolu tawhid la bu dee njàng it ci lañ mën a amee islaam ndax njàng mi ci ngay mën a xamee fiq man koo jëfandikoo xasida yi ñuy jàng mooy ihsaan def ngir yàlla ndax loolu mooy defarab xol te ihsaan mooy defarab xol moo tax ma a la ci la ko tënk muy iman islaam ihsaan bi mu sampee daara yi tamit mën a tërbiyaam moom daa boole woon ak tërbiyatu wa taalim boole yar ak jàngale man mii di wax yow mas na ma def loo xam ne fa faaw ma nettali ko ci yar dañoo nekk lagan Serigne Sall daan def bu jullee fajar ba ñëw toog ci juróom benn koñ bi dafay nekk di wird ba mu xaw ba mu xaw a naaj lool mu doog génn génn bis booba nag day def léeg bu bëggee fatoog kenn te bëggul kenn dugg ci dana fexe ba def ko defin woo xam ne ñi ci des duñ duñ duñ mer mën a tër bi lépp bokk na ci bañ di yee nit ñi ci lu leen di jaaxal sëriñ Sall nag daan def ñëpp fexe ba tolloo ci jëfinam bi mu jógee bëgg ma ànd ak moom waxtaan kat ci loo fekkee nettali loo loo loo fekkee baax na ci bëgg ma ànd ak moom dafa ju dafa jóg romb dàll yi dox lu war a mat ñaari mètre dal na rek taxaw na ma galas jëlal ma dàll yi ma jëlal ko dàll yi topp ci ginnaawam bi ñu àggee ba ci bunt bi mu ne ma damaa jubloogul kenn fekk ma fi gaawal tëj bunt bi te ñëw toog nii loolu lu tax ma di ko indi defloo na ma loolu te ñi ma bàyyi ginnaaw kenn du am looy xalaat ndax jàpp nañu sëñ bi dàll yi la ma soxlaa fekk daf maa soxla ci biir loola bokk na ci mën a yar daana jël gone yi di ko dugalaale ci otoom di ko yóbbu fu ne di dem ak dikk su ko defee ñu naan ah waaw sëriñ bi day kii gone yi nga xam nanguwut jàng nanguwut toog mu di ko dugal ci oto bi dem ak dikk rek day dem ba mu yàgg mu ne ah képp ku ngeen gis ma di ko dugal sama oto yi di ko dugal sama barab yi di ànd ak mu jëm fu ne damaa ama amagut ci moom yaakaar. waaye ki ma xam ki nga xam ne am naa ci moom yaakaar Serigne Sall dana wax ne bu ma ko rombee damay mel ni ku ko xamul ndeke bu amee ci yaakaar dëgg rek bu la rombee day mel ni ku la xamul te it tërbiyee taxoo la laaj jooju ma doon wax da ko daan def ba pare di ko wax ngir ñu mën a xam li muy wax lan la da daan toog ba mu yàgg mu ne si Abdou Dieng Balla Fall day dafa am ku ma sa ñëw sëriñ Touba ne ne ko dama bëgg nga defar ma. sëriñ Tuubaa ne ko defar day taxoo la laaj Abdou Dieng Balla Fall day moom defar naa ko sëriñ Tuubaa ci mujj gi mel na ni taxoo yombu ko woon ndax ni mu nekkee woon la ku ne xam na ko mbooloo mi jallu nañ ci kawam bi xasida bi bind tax na ak nekk nekk ci yàlla ak li ko yàlla ñor nga xam ne dara raxu ko lu du yàlla tax na mënutoon a taxoog nit ni mu war a taxoog moom ba tax na bi muy wax loolu seet na ko mu wóolu muy Serigne Abdou Dieng Balla Fally na defar naa ko Serigne daanu ñu misaal loolu ngir ñu woon ne it kon góorgóorlu leen ndax am naa jotuk taxoog yéen mën naa dem ba ñàkk ko te Abdou Dieng Balla Fally nag defar naa ko Serigne Abdou Dieng Balla Fally defar naa ko jooju Serigne Touba waxoon mooy wone ne kon nag yéen na ngeen fexee defaru ba ku taxoog yéen defaru mu nekk ak ñun ci loolu nga xam ni bi mu doonee bi mu ba doon xalifa li mu njëkk a def mooy dafa woolu RTS mu ñëw mu ne li tàmbalee altine talaata àllarba dama bëgg ngeen may ma ko ndax dama koy dem sama daara yi ba tax na nit ñi bu ñu ma santi siyaare ba dimanche jàll da gis kuy bëgg a siyaare sa ñun laa Serigne Saliou xanaa xamoon tey altine même bu demutoon ci daara it nekk ci kër gi du tijji boobu ci lay gisanteeg dongo yi ñu di ko wax yitte yi mu di ko faj walla li mu war a soxla ak dongo yi wala li mu war a séq ak ñoom maa ngi fàttaliku daaru alamul xabir Moustapha ñëw nekk fa ba yor yoru alxamis booba maa nga fa dongo yi nga xam ne fekke woon loolu loola ku ci dégg waxtaan wi da xam li may wax lan la ndax ñu ko ndax ñu ko fekkoon ëpp na nit dafa nekk ba boori 10 heures mu toog ci njoowaan gi ci kees gi nga xam ne ci la xayma bi nekk ñu ñëpp ñu wër ko mu daal ni damaa bëgg a waxtaan ak yéen te waxtaan wi bëgguma kenn rax ñu daal ni nañ xool bu fekkee kenn raxunu ñu tëj ko fekk la waral waxtaan wi sëriñ Xalil Mbàkke mi nga xam ne ab sëtam la maa ngi koy ñaanal ndax araf yi may waxtaanee kat moo ma ko jàngal mu yàgg fi loolu te gën a wér moo wayoon xësit ak wolof ba cay wax bu ñu añee laax bàmmeel bu ñu fa wéet ndeke loolu yóbbu na sëñ bi ci àll ndax booba ku ñaan mu njaay xasida moo ko doon jàng ba sëñ bi sax gis naa ne keroog tuur na ay xéwal niñ ko wala fi waxe bi sëriñ Saaliwu toogee di waxtaan ak ñun am ci ku ñaan mu jaañ ba na ton ne ko man de damaa mas dem sul kër sol xaftaan yi nga ñuy jox sama waajur ne ma yéen day waaye yéen ñi ne ci daara ji day day mel ni sax yéen suñuy waajur yéen ñi toog ñi say waajur toog ci kër gi yéene a ñu dàq yére yu ngeen solo ak matelas yi moom da doon sant rek ak matelas yi nga ñu tegal ak néeg yi sëñ bi ne ci ton ne ko yére yi waruma néeg yi waruma matelas yi waruma li ma waroon ci yéen kay mooy ñëw dox ak yéen ba ci ab àll rek buñ gaj bu gaj bu xonq coyyu ne fii liggéeyal leen fi sëñ Tuubaa te dem sama yoon yéenay xool nu ngeen di sampi ay néeg yéenay xool nu ngeen di baye yéenay xool nu ngeen di sampe seen néeg yére yi itam li tax ma di ko def mooy dafa xam nga daal na ko xam nga kilo kilomètre yére kilomètre mu jaañ ne ko ah kilomètre yére de xanaa moom mooy mooy mooy fukki kilo fukk euh, waaw mu ne ko waaw mu ne ko nit mas na ma koo siyaaree rullu boo xam ne kilomètre la ne ma sa dongee laa ko jox loola ginnaaw tudd na leen faaw mu wét leen ko daal ne ak ñeneen ñu koy def waaye waruma waaye da ngeen di liggéeyal sëñ tubaa may liggéeyal sëñ tubaa ci yéen daal ne li ma waroon rek mooy ñëw ba ci àll bu xonq coy ne leen fii rek mën ngeen fi liggéeyal sëñ tubaa daal ne na ngeen ko jàppee noonu dal ne ña ne woon mbàkki kajoor day foofu lañ doge woon yoon wi waaye yéen fii ngeen ko doge daal ne wenn yoon wenn yoon rek la dégg li mu wax de daal ne ñu Serigne Touba yoroon Kajoor di leen tërbiye néeg yi leen sëriñ tubaa defaloon moo gën néeg yi ñu dëkk daal ne foofu la jamono tolloon kon bu ñu demee ba jamono toll fii ñu war a mën a indi ay tabax war a mën a indi ay mat matelas taxut mu yàq dara ci tërbiye gi ak nam daan demee kon ñoom foofee lañ doge yoon wi yéen yéen ñit fii ngeen doge yoon wi di waxtaan waxtaan wax bëri lool te yaatu lool. waaye dafa jékki-jékki na bëri taxaw maa ngi ko maa koy fàttaliku du ko fàtte mukk mi ngi sol benn garambu bu baxa bi mu jógee taxaw ba ñu ñëpp ngi toog mu jub taxaw tiim ñu daal ne tey ñu ne alxamis mu ne ah nit ñi kat maa leen waxoon ni nañ ma may altine ak talaata ak àllarba su ma demee ba seen bisi bopp bi ma bëgg ko cee boole kon nag bay boo ma daal di dellu Touba. daal ne kon ku bëgg lépp dem da ngay nangoo yenu lépp keroog kàdd googu Serigne Saliou moom la tàggoog ñun daal di dem euh, noonu noonu la nekkee nga xam ne dem na ba ñëpp xam ne dem gi ci daara yeeg dikk yi mënatu ko waaye doon na ko jéem ndax bu ngeen ko seetloo sax bi mu mujjee daara ak bi mu làqoo ko soreewul te boobu wax nañ ne daanaka dem gi ku ne xam ne ni mënatu ko bu baax waaye day daan toog ba mu yàgg man mas na maa gis sëñ Mbay Jóob mii nekk mbuur jóge mbuur ñëw sëriñ bi di ko laaj ci bagage yi néegam yi xeeti bagaas yoo xam ne yooye bagage sax wala tusrifu innahu laa yuhibbul musrifin rek mooy tax ñu xam ni bu li alxuraan ne bu leen yàq ndax yàlla bëggul ku yàq loola ci laa ko jàngaate bu baax a baax a baax wala benn mu doon bagage yoo xam ne daa duggee ci duggee ci barkeelu Serigne Touba tam yoroon ko gis nga am na kaas yu fi xewoon yoo xam ne da bula te am digg bi xaw a mel na lu xóot Serigne Sall di ko laaj kaas yooyu naan ko sama kaas yooyu di ko laaj naan ko ana am na leket ak ak ak leket ba ci leket Serigne saal di ko laaj nga xam ne sëñ Mbaye Diop mi ngi koy wax ne ko lépp nga fa waaye gis naa muy muuñ ndax xam naa ne sëñ Mbaye Diop gis naa ne yéemuwaat na sëñ bi xam ne mbiram ku ko denc bay ba nga denc bu baax te xam dana la ko mas a laaj ñàkk mën a fàtte gi nga xam ne sëriñ Saliou jëm boppam nitug yàlla am àggoon na ci ak mu jëm booy wax ak moom ay nopp moom màggat màggataaliwu ko booy wax ak moom ak lu wax ji sore sore dana la dégg ay bëtit màggataaliwu ko sëriñ Saliou kayitu bëccëg da ko daan xool kayitu bëccëg da ko daan xool njàng mi it mu nargañ ci dong yi bu baax a baax a baax di leen ko fonkloo ba ci way yi nga gis naaru gànnaar yi di ko way Sëriñ Sall dafa ñu ko daan fonkloo bu baax a baax man mas na maa ñëw di ko laaj diwaanu naar yi diwaanu sawaaya ahlil muritani ne ko dama ko bëgg demoon naa sax ci am di jatara di ko ko laaj mu ne ma mbaa joxu ko sëñ am di jatara ma ne ko déedéet joxuma ko de mu ne ma waaw loolu de maa ko ko waxoon maa ko waxoon na ko daaray kaamil moo ci yokkul du ci wàññi loolu sëriñ Saliou mu ko wax daal di yónni laat gay ne ko yót ma benn ci te diwaan naar yi benn diwaan bi mu ko indee mu ubbi xës yi naar yi di ci waxtaan ak man keroog bokk na ci li li ma wax di ma fàttali ki ñaan ibnul maalla ne ma ibnul mualla day yàlla dafa dogal li ñuy wax jinaas taam da koo man ba pare day dem bay def ci xës dëgg yi ay yu kiimaane day xësal ba xësal bi bëgg a jeex mu wàcce loxoom ba nga defee noonu la mu delluwaat ci xësit ba xësit xësal ba nga xam ne fonk gi mu fonkoon am njàng demoon na ba dongee dañ cey jeexitalu tuuti rek la nit di jàng nga gis mu tàmbalee way kon ñu yemale foofu ba ëllëg allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim